ca lycée bu Parcelles Assainies malaise moo ko mu jaare cay wàcc ba ko yóbbu di ko euh, faji ca yoon wa euh, la des Moustapha Sarr dim nappkat bu newoon ca Soumbédioune bés ñi tey la woon ci wile waxtu trembe ca la kob garde ko dóoroon baalu fetal mu tey ca Soumbédioune gaal demul géej mool nappiwul ay ñaan la ñu xëye ngir ñaanal Moustapha Sarr boole ceekit di sàkku ci yoon mu def la ko war ca moomi li mbir Abdoulaye Wade noppi ngir toog a kujjeg politique gi ngiri 6 ne fi mu nekk nii la ñu fas yéene moo di dajale ku jëg politique gi wax ak ñoom ngir loxo yi leen Abdoulaye Wade tàllal ngiri waxtaan ci réew mi ñu daal di koy nangu Ahmed Khalifa Niass njiital FAP Front Alliance Patriotique ne bu ñu bañee lu mel ne li fi woon 23 juin faw ak gouvernement transition nationale am kon ci réew bu Sénégal taxañum xabaar baa ngoog mbokk yi des na ko tàqar ñi toftal ci tàggat yaram ànd ci ak Baye Ndate Diop ni ñu ko baaxoo talaata bu nekk taxaw seetlu jëm ci dundinu askan wi ñu ànd ci ak Binta Diallo fait du jour li ci yéene kay ak El Hadji Ahmed Aïdara ñu soog a daanoo génn ci kàddu askan wi kàddu tuuma yi bawoo ci doomu colonel Momar Khadafi gàlle ci ndoddal waa Wade di Abdoulaye Wade ak doomam ci ne fukki milliards ak ñett yu leen jox loole ban gis-gis ngeen ci am kàddu tuuma yu ni mel ci njeextal xabaar yi ci 88 628 14 14 Marie Justine Diogo moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. lu doy waar ca lycée Parcelles Assainies ci candidat yi doon def examen baccalauréat kenn ca ñoom di Pierre Emmanuel Gomis moom moo faatu bokkoon ca jury 485 moom élève boobee malaise moo ko dab muy wàccu teg ci. ñu ko doon yóbbu ca fi nga xamante ne ji mooy infirmerie bu lekkool ba ci la mujj faatu ñu jàpp ne kii di M Pierre Emmanuel Gomis ma nga dëkkoon ca HLM Las Palmas leeral yeeg Salif Sow. néewub kii di Pierre Mansour Gomis yóbbu nañ ko ci morgue hôpital Aristide Le Dantec moom mi nga xamante ni baccalauréat la doon def daa wàcc liggéey ba 11h ci suba ba mu jotee ci biir infirmerie bu lycée bu Parcelles Assainies ba mu doon defee jongante baccalauréat boobee loolee nag mu ngi am ginnaaw ba bopp bi doon metti mu daal teg ci ay wàccu a graw président a boole ko wante loolee du mës a am Pierre Mansour Gomis dafay faatu fukki minute juróom rek a ciy tegu xale bu am ñaar fukki at ak ñett jëlul woon li nga xamante mooy ndékkeem ak i ay garabam balaa muy ñëw école suba gu jot noonu la daa def président jury bi moo ñu ko xamal président jury 485 nee nañu Pierre Mansour Gomis L2 la doon def gune gi nga xamante ni moo doon toog ci table numéro li nga xamante mooy premier diplôme universitaire am tam ko doon sàkku du lu muy mës a am Salif Sow Parcelles Assainies rajo Futur Média. Salif mm, Sow ma ngoog ñu des ba léegi ci examen baccalauréat yi ñu door euh, démb ci réew mi yëpp ca lycée Ibou Diallo bu Sédhiou foofee am na ñaar ñu ñu fa teg loxo ndax euh, dañu doon def wàllu tirise lu ni mel démb la président 2017 eh, di eh, xamle ne daal yëf yi kon dafa am ak bàyyi ko koog fooyoo la ak ñàkkal fayda goog def nañ ko ci wàllu surveillance gi ñooñu ñu jàpp ñu doon tricher démb la woon Bakary Konté. ñaari candidat yoo xamante ne dañ leen jàpp fekk la ñuy mu ngi xewee ci lycée Ibou Diallo président jury 347 Alvarez Benga di confirmer. waaye amoon na ñaari cas ñaari cas tricherie. dañu ñor am na ku yoroon benn. Euh, comme ñu ko waxee benn euh, feuille brouillon autre que ñu lu ñu joxoon pour examen bi ak euh, quoi moom ñaari page anal ñaari page électricité ah, ak ak benn cahier exercice mathématique bon après mu génne leen moom nag kontaanul si surveillance bi mu ne nag am na légèreté maanaam nu ñuy daal di bàyyee yi ñenn ñi di tricher lo nag mu koy ñaawlu wante tam mu ne yenn surveillant yi dañuy tardé surveillance bi desoon na quoi parce que mënu ma comprendre nag ñu nekk ci classe te am na ñaari surveillant te man président de jury man maa war a ñëw ba foofu euh, sa euh, jàpp ñu ñu triche et foofu pas du tout non non contente mu ci lii nag nekk na loo xamante ne nit ñi ngi koy waxtaanee fu nekk fii ci diwaanu Sédhiou ñenn ñi sax ñi ne président jury bi dafa compliqué loolu ba di tere candidat yi def seen liggéey boo demee si jury 345 ak 346 si centre bu lycée bu Diallo foofu nag président jury bi ñoom ñaar yépp ñi ne daal examen bi mu muy déroulé daal baax na ba léegi amuñu benn tolof tolof Bakary Konté Sédhiou rajo Futur Media. diwaanu Mbàkke looloo fa waaye la wuutale centre boobee ak yenn ci centre yu ñuy defee examen baccalauréat moo di jamono ji ndongo yi defee lu ñu war a bay génn yi nuppalu dañuy dajaloo di jàngi xasaayit eh, xasaayit yooyu dañ cey sant Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba mu di lool eh, guléet ñu koy gis ci centre d'examen lay Fam nekkuñ ci daara rawatina ci màggal wala ci gàmm ñu ngi fii ci lycée bu Mbàkke di benn centre examen wu bac bi ci département bi bi jotee ba candidat yi jeexal ci épreuve suba gi ambiance bi ci cour lycée bi leneen la candidat yi nag mel ni ñu bëgg a fàtte épreuve yi laata ñuy song ngoon gi di reesal añ bi nga xam ne député libéral Thierno moom moo leen ko jox. indi ñu ceebu jën. poisson bi ndox indi ñu ay mousse à jeter café. dara manqué daal li ñuy soxla yëpp indi na ko daal. waaye day li añ bi di neex neex taxul nag mu fàttaloo leen méttiwaayu examen yi. waaye doy na bi ñun dañ koo jël première langue li ci doon séntu daal lu bëri joxuñu ko si quoi. ñii moom mel ni jaaxle googu li dabu leen. wékk lépp si seen boroom ak Serigne Touba. ñun daal dañuy def lu dul sant lépp lu ñu jox daal dinañ bind di xaar nag Serigne Touba def ci loxoom. te am nañ ci njott rafet. Abdoulaye Fam Touba Mbacké RFM rajo Futur Média xibaaru tàkkusaan si ñeent yoxtu fegg fanweeri minute ak juróom-ñett pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM ñi tey la woon ci wile waxtu tembe ca la ñu ca dóoroon Moustapha Sarr balu fetal mu ci famp gi e, Moustapha Sarr doon nappkat ca Soumbédioune gaar du ko ko fetal googe tax na bésub tey gi gaal xëyul dem géej nappkat nappiwul ñoom ñëpp nga daje woon foofee amal ay jàng ki ñaan jagleel ko Moustapha Sarr tey sàkku nag ci yoon mu def la ko war alxuraan ji mag ñi di ko jàng noonu xale yuy góor yi ñoom sol seeni tiset yoo xam ni photo Moustapha Sarr moo ca nekk ñoom ñëpp taxaw ci tefesu Soumbédioune gi jàkkaarloo géej gi di seen nag île des serpents di foofa nga xam ni fa la ñu faatee Moustapha Sarr ki ko faat di benn agent eaux et forêt boobaak léegi mat na at Soumbédioune nekk ci mer ba léegi. ba léegi boo xoolee euh, jotaay bi nii nga xam ne ba léegi si mer la ñu nekk. parce que mbir bi fu mu demee ak fu mu mujjee moo ñu gën a merloo parce que xam nga du fekkee ne dañu ne Sénégal pays de droit la te ñu rey nit ak niñ ko reyee. Euh, ñu ne ñu ne jàpp nañu waa ji ñu toogaat ba mu yàgg ñu ne bàyyi nañu waa ji liberté provisoire loolu xam nga daf ñuy xaw a kon ñoom loolu ñu waxoon ne dinañ ko dox def ko teg waa ji si yoon defuñu ko loolu moo ñu gën a yokk merloo Adama Thiam moom moo jiite regroupement des jeunes pêcheurs de Soumbédioune maanaam xale yi féetee ndaw tey napp foofa ca géeju Soumbédioune foofa tey kenn demul géej nappi benn gaal demul géej c'est la première fois depuis que Soumbédioune nekk Soumbédioune façon événement bu nekk am na fi mais c'est la première fois au Soumbédioune nga ne ne événement Tafa bi am na benn benn gaal demul géej kenn liggéey amul benn activité bu bu euh, ku fi liggéey tey loolu si cause bi c'est la première fois moom si mujj. ci kër Moustapha Sarr ñuy dégg ay jooyoo ca biir néeg ya li ñuy fàttaliku moo leen metti aram di soxna Moustapha Sarr moom muuróob ab kol di muñ waaye itam di mer ba léegi. xëy ba tey ni ma ko dundee daf ma métti ba fii ma lay wax yoon ma métti li ma si gën a métti mooy ki rey sama jëkkër pare même pas six mois at. ñu génnee ko loolu a metti la. ca Soumbédioune kenn bëggul suul deewug Moustapha sar gi. Babacar Fall Sytjust syndicat gi bu ñuy liggéey ca wàllu yoon nañu ko diggee woon na la ñu ko xëy defee gërëm ñetti fan ba ñuy door tey jii jëm moom ginnaaw suba ñanga ca sénégalais yi nekk ñoom ci jafe-jafe ngir mën a jot ci kayit yi ñuy lijjanti yi ca tribunal yi ñu liggéeykat yi justice yi doon te ñi ngi ci gërëwet ñàkkul ñu bari ci ñoom li am neexu leen. pàcc nañu ko waxee foofu rek la ñu mën a jaar ngir ñoom it ñu xam ne ñoo ngi ki tawat reportage yu Awa Mbaye koŋ bunt bi ubbeekuwul ndax greffier yi ñoo nekk ci ab grève nit ñi ñëw wutali ci tribunal ñii permis de conduire bi nekk ci loxoy yoon la ñu bëgg a jël ñeneen ñi li leen fi indi mooy papier de jugement ñi ci des nag ay demande d'annulation waaye nag ñoom ñëpp ñu ñàkk pexe ñibbiwaat seen i kër ndax gisuñu greffier bu ñu waxal kenn ci ñoom di James Thomas moom boo xoolee xar kanam gi nga xam ne amut lu ko neex. ñëpp ça fait dix jours maa ngi ñëw nag pour affaire certificat national de chaque fois ñu ne ma grève grève grève grève te vraiment xam naa ne am nañu ay revendications quand même mais peut être mën nañ mën nañ ñun sax concerné wuñ si mais ñu siy bàyyi xel au moins ñuy jël ay heures au moins bu mënoon nekk di jël nit yi quoi mun leen dimbale. Aziz Traoré moom mi ngi bëggoon a jël ab këyit bu tudd papier de jugement ngir fexe nag ba jot koppar yi nga xamante ne moom la tribunal wax ne moom lañ koy jox yi waaye boobu ba léegi mu ngi daw jotagu ci grève bi gën koo yokk non métti na trop fi ngay jógee di ñëw chaque jour nga bëgg waaye nga nga jógee Pikine di day métti quoi. greffier bi moom ñu ngi ko fekk ci biir biroom waaye liggéeyul ma nga sol ab jiin ak t-shirt waaye nee na xol bi métti na bu gisee nit ñi ñu ñëw wutali si tribunal te duñu am lu ñu bëgg Pam Mor Mbaye lay wuyoo. ñun bu ñu ñëwee tribunal gis nit ñi taxaw di wut ay këyit daf ñuy metti parce que ci askan wi lañ bokk ci askan wi lañ jóge donc bi gisee loolu mu metti ko lool jour nga xam ne moom lañ def présence passive mooy les vendredis ak les lundis wax nañ ci agent yi nga xam ne ñoo ñoom lañ proposé casier ak certificat nationalité ñu ñu délivré parce am na xale yoo xam ne a def ay concours ñu war a def ay kii xalaat nañ leen. waaye xol bu tooy ndax jafe-jafe yi askan wi di jànkoonteel nekkul ne wàccee say loxo ngir bàyyi xeex bi au contraire greffier yi nee nañu dina dem ba ci cappaandaw la. RFM xibaar yi ci RFM. njiitu réew bu Sénégal Abdoulaye Wade tey jii ci digg bëccëg gi daje na kuréel gi di groupe de six euh, la mu leen xamal moo di waxtaan ci wàllu politique tey la ca gën a dogu waxtaan wu dëggu diggam ak kujjeeg politique gi looleet ña fa demoon rafetlu ko ñu fas yéene sol seenu dàll noonu ñu demee ci Abdoulaye Wade ñu fas yéene demit ci kujjeeg politique gi ngir ñu toog waxtaan euh, kii di euh, mbay si di mbay moo yore seen kaddu ñu déglu ko ci jokkoom ak El Hadji Alassane Samba Diop ubbe ubbeeg nañu bi ñu demee dañ ko expliquer que ñun xaaruñu ci dara lu dul jàmm ci réew mi parce que nous sommes ñun ñëpp dañu am tiit ci li xew depuis quelque temps euh, loo xam ne du kanamu Sénégal boobu la ñu xam xamuñu loolu ci Sénégal te su continuer dana désordre dana mujj yàq république yàq démocratie yàq euh, dal bi amoon ci réew mi alors loolu moo tax ñu jóg dem gis ko ne ko nag ñun ci suñu xalaat su toogee di gouverner te waxul ak opposition opposition bi waxul ak moom euh, loolu du facilité du yombal euh, jàmm ci réew mi loolu daal moo tax ñu jóg wax ko ko euh, moom itam recevoir nañu bu baax wan nañu ne ubbeeku na pour que waxtaan boobu mën a fàttali ne groupe des six googee kuréelu gomb juróom benn nit yu jóg di sol seenu dal diggante bu ñagas ñu rattaxal ko ci juróom benn yooyu bokk na ci Pierre Goudiaby Atépa Baydy Diagne Mansour Kama Ismaïla Madior Fall Anaba ak Mbaye Sidi Mbaye moomee ngeen euh, dégg Ahmed xalifa Niass njiital FAP Front Alliance Patriotique moom la muy sàkku ci Abdoulaye Wade moo di mu taxawal gouvernement d'union nationale boobu as njigante lay doon di transition ci gis-gisam loolee rek lañ mën a def ngir maanaam moytu li fi woon 23 juin Ahmed Khalifa Niass ci micro ñuma ba. yéen yéen may dégg may wax Abdoulaye Wade depuis un an ne ko bul présenté wu yéen muy dégg dégg un an may wax Ablaye Wade ne ko na nga def gouvernement de rassemblement fii nag danaa oote ne lii ubbi affaire bi mooy na créer tout suite gouvernement d'union national de transition vers les élections gouvernement boo xam ne moom mooy defar élection yi waaye defar élection yi ba pare loolu olof mooy li olof di wax ne doo fecc di sabaru benn nga ci def waaye mënoo tëgg ndënd yi ba pare di pàkkar ñi benn rek ci mën a def c'est-à-dire que mënoo def élection yi ba pare wax na yow yaa gagné xëy na loo am na réew yu mën a nekk mais pas ci suñu réew mii parce que nit ñi ils sont partisans premier ministre ngi nii léegi fi ma taxawoon la taxaw bu nekkee directeur de campagne naka lay mën a arbitrer directeur de campagne dina arbitrer sa propre défaite logique voudrait que non réewee mooy am Euh, gouvernement ba duñ sañ a nekk directeur de campagne ñu bokk ci parti duñ fi fenn réew mi lañ fi nekkal ñu seetaan réew mi muy tàkk réew mi bu tàkkee ñi gën a ñàkk ñooy gën a ñàkk ndax taaluñ oto Ablaye Wade taa euh, oto yiñ taal ay lambda ñoo ko moom